Dakar, instant. L'information en temps réel. Suivez l'actualité au Sénégal. parce que du euh, si yi nu ko jàppee maanaam ci ci ci jàpp nous nu ko bi ci yoon nous, lettre d'information euh, ñu ñu ñu ñu interpréter ci ak ay quoi xam et puis bu ñu liñ ci ba voilà euh, préfecture dafa nekk foo xam ni dafa am ñu ñu koy autorisé ci période pandémie bi am ñoo xamante ni dañ leen koy lànkal loolu lañu bëgg a xam mais avant tout damay bëgg kenn ku ci ne bu duggee mu partager ñu laaf bi parce que dañu arrêté benn nit boo xam ne xëy na deful dara jàppuñu ko ci jàppin bu jaar yoon fekkuñu ko këram rassemblé wul saagawul kenn sànniwul gis ngeen ci image yi nga xamante ne moom lañuy ñuy jot a partagé léegi ngeen gis ni que dañu ko tëral sax tiim ko lu mat quatre wala cinq policiers tiim benn nit boo xamante ni dafa jor lettre d'information dem.

voilà légui ñu xey lettre d'information pour manifestation euh, rassemblement rassemblement nous ñu wax dañu téré ay rassemblement depuis état d'urgence bi depuis ñu lever état d'urgence bi depuis depuis depuis téwul amul kufi amul kilifa gu fi waccul liggéey ñu jël ay vol lu mat 7 wala 7 vol jóge Nigeria ñew fi Sénégal pour lan te Nigéria kenn ku nekk xamna na ba nam fa mel kenn ku nekk xamna na ñu mel Ghana kenn ku nekk xamna na ñu mel Sénégal légui ñu bay ñoo ñu mëna a ñëw ci réew mi yépp leen ay avion bu ñu fess dell waccé leen fi Dakar waccé leen fi ci Kaolack waccé leen fi ñu ñëw def seen ay ziar dajé lu mat 1 million de personnes ci benn bis pour ñu euh denc xalif bi ñu ba paré ñu tere. ñu mën a terewaat ay rassemblement yoo xamante ne ni xëy na ñu koy def euh, mën nañu xam nañu ni ñuy jëlee seen ay matuwaay ba te te ba ba ba mbir mi du yegg foo xamante ne nii foofu lañ ko doon xaar voilà li am solo mooy li am solo mooy dañu jàpp benn nit bu àndoon ak ñeenti nit yu àndoon ak ñeenti nit ak moom muy juróom quoi dañu jàpp benn nit bu àndoon ak ñeenti nit ñuy juróom nit. bu ngeen xoolee image bi ñu partagé gis ngeen ñi taxaw wër ko te te ñu te ñëpp ay ay nit yu àndoon ak ñoom la pour te ñu ci waa collectif bi la pour ñu dem déposer lettre d'information même si que dañuy tere dañuy tere manifestation bi qu'importe lu mënti am mais moom am na droit dem dugal lettre d'information moom am na si droit quel que soit moom am na si droit quoi léegi ñoom ban droit la ñu am ba ne ko doo fi dugg léegi loolu mooy wax ci ñoom ban ban ban sañ-sañ ci lan la ñu wékku ba ne ko préfecture bi kenn dootu fi dugg ci lan lañu wéeku bané ko do duggu ak sa lettre man nak li ma moom boo ma doko doko jël moy nga bëgg wala nga bëgg ay néw yu bari tëdd gii bañkat la jambar la mom dang koy ray wala mu ray mais mom xalaatul carrément li mu bëgg liko ko yoon may ko koy xaj loolu mom ñun ñëpp ñoko bokk xam ñun ñëpp nañ ko xamando légui nak japp nañ ko ñu ngi commissariat central ni ñuy wax ak ni ñu ngi commissariat central ñu bari jote uñ commissariat central ñu bari guñ ko commissariat central mais li ëpp solo mooy deful saagawul deful rassemblement saagawul kenn léegi rek bi mu mujjee bind mooy ñoo ngi toog bi mu mujjee bind mooy ñoo ngi toog du ñu téye dañ ma téye quoi maanaam moom deful dara mais xamul ba ba tey lan lañ koy toppee quoi koo xamante ni mais lan mais toujours rassemblement mi ngi am dañ ko jàpp ndax lan rassemblement ànd ak trois personnes quatre personnes ak moom muy cinq ñu dem déposer benn lettre mais loolu xanaa bu doon pare de la république sax loolu warul jur fitna warul jur coow warul jur ñu ci jàpp nit di ko tëral si kaw tali bi comme sax warul jur ñuy warul tax ñu jàpp nit ki di ko traité comme ça yenn yi benn nit boo xamante ne saa yi buñ ko jàppee dañ koy toroxal si kaw tali bi comme ça ci loo xamante ni saa buñ ko jàppee ci injustice lañ koy teg saa buñ ko jàppee ci ay waxu euh, ñoo xamante ni préfet bi nga xamante ni moog golooyam dañuy yàq rek képp ku fi am lu baax préfet bi yàq na ko ak ñi mu àndal di fa am lu baax à de ay arrêté ministre yu tekkiwul dara yi ay arrêté ministre yu ñàkk fayre yi ñu koy weccoo ak constitution réew mi ñu koy weccoo ak doomi ndaw réew mi ñu koy weccoo ak ñi tax ñu tey réew mi war a mën a am ak sartu yooyu noonu yëpp à cause ay golo yoo xamante ni seen bopp rek moo leen ñor ak ñi ànd ak ñoom à cause de ñooñu kese ñoo tax ñuy toroxal benn doomu benn doomu jàmbur mënuma concevoir ñu nga ànd ak cinq personnes ñu seppi la ci yow dong tëral ci kaw tali bi yóbbu la commissariat central te tée la fa mënuma concevoir loolu loolu kenn mun ku ko mën a seetaan mën nga seetaan lu mën nga seetaan lu raw yi yi ñëwagul c'est-à-dire que bu ñu bu ñu bu ñu naxante gii Marius fi ñu toll mi ngi commissariat central léegi nag ñun rassemblement la ñuy bañ damaa yaakaar ñoom rassemblement la ñu soxla man dama foog ne ñoom rassemblement la ñu soxla ko ci injustice yu mel ni ñun mënuñu ko duñu ko doxantoo ba koy waxee injustice yu mel ni yii dafa franglan yii duñu ko seetaan li ëpp solo mooy li ñu gën a yitteel mooy dama ni nañu ko bàyyi mu ñibbi këram comme ni ñu bàyyee ñi ca des parce que defuñu li tax sax ñu war leen a téye ba leen bàyyi loolu mooy message bi nga xamante ni ni duñu ci am lu ñuy gàntoog lu ñuy xaar pour ñu téye gii fii nii ci central mu yendu fa sax mayu ñu leen ko billaahi wallahi taala bu dee rassemblement la ñuy bañ ñun am nañu ay cap am nañu capacité rassemblement fudul biir foofu noonu central waxuntuma la ak ay ay ay kii lu ñuy def lu ñu ko wax lu ñu ko waxantoo billaahi wallahi bu ñu ko bàyyi barki alxuraan bu fekkee rassemblement la ñuy bañ dinañ wàcce war armée bi yëpp ci kaw mbedd mi parce que ñun yooyu caaxaane ñu ko caaxaane ko nañu bàyyi seen yu ñàkk fayda yi di fooy justice bi di fooy alkaati yi di fooy préfet bi nga xamante ni toujours moo ko gola la quoi bu fekkee rassemblement la ñuy bañ nag d'ici quatre d'ici d'ici d'ici euh, trois heures de temps car euh, duñu duñu duñu duñu duñu téye doomu jàmbur bi foofu waxuma la rassembler mais ñun duñu bàyyi suñu ay plan d'action mooy wàcc ci terrain bi ne leen yéen da ngeen ñu yab wàcc ci terrain da ngeen ñuy fonto wàcc ci terrain bi ne yéen da ngeen a yabaate ah déposer lettre d'information ànd ak sa ay mbokk ànd ak sa ay nit collectif surtout du frappe du frappe du yanamar mais collectif bi la ñetti collectif ñu and ñu sepp ci benn nit yóbbu ko ndax la ndax la mënuñu concevoir lu mel noonu ñoo ngi ñaan sénégalais yëpp laa la wax ñi ngi ñaan sénégalais yëpp bu ñu ko bàyyiwul bu ñu ko bàyyiwul fii ak 15 heures lu mu leen jaral ñoom ñu téeku na leen ko jaral yéen lu mu leen jaral pour ñoom ñu téeku yéen na leen ko jaral